Euh, désobéissance euh, mënta civique <laughs> parce que lu civique mooy le républicain euh, c'est vrai que ci cadre révolution mën nañ ni bon buñ la opprimer sonal la bu naataal la boobaa résistance day nekk devoir wala droit ci yow même devoir mm mais désobéissance du civique li civique mooy nga répondre pour tribunal convoqué maa ngi fàttali ni bi ñu convoqué sëñ tubaa bureau Ndar waxul ni duma dem bi ñu convoqué Mamadou Dia temps yi Senghor <laughs> waxul ni waxul ni duma dem Cheikh Béthio noonu sëñ Moustapha Sy sëñ Cheikh Tidiane Sy ba ci xalifa Sall Karim Wade bu dul Hissène Habré Hissène Habré rek lañ fi convoqué mu ni du dem ñu fatank bu dul Hissène Habré fii ku kuñ fi mos a convoqué dafa dem man am naa maam boo xam ne bi ñu ko convoqué ci su tubaab yi convoqué ci poste mbijam bi ci lak tanma euh, ma maali béer sàmb fa lañ ko faat armeelam ba léegi mu ngi ci tool yi foofu c'était le jaraaf du cap mhm. <laughs> te dafa dem wuy ji pour wax la ni situation la boo xam ni procès ñu lay tuumaal surtout viol neexul <laughs> neexul mais moom am na benn chance déjà ñu tuumaal le viol ngay comparaître libre <laughs> bariwul ñu am chance boobu du ma ne amul mais dama ni bariwul ngay ñu tuumaal le viol ngay comparaître libre beneen bi mooy du dossier correctionnel stratégie bi mu teg li tax stratégie bi baaxul mooy stratégie boobu dafay neutraliser avocam te ñëpp xam nañ ni ay avocats yu xarañ la yor yu bokk ci mairie yi mu empêché leen ñu liggéey déjà ci procès Mame Mbaye gis nga ne avocats yi mënuñu opérationnel te gis nga résultat bi bu avocats yi opérationnel def feu de tout bois face à l'accusation face à la euh, fële mm-hmm. mais man mën naa am benn résultat fii tamit également su adopté même stratégie boobu même problème bi lay amaat parce que avocat da leen da leen di téye du ñu mën a liggéey or 471 <laughs> pages euh, ci ci instruction mais du ay caaxaan c'est pas des blagues te affaire u justice c'est des problèmes c'est un problème technique mhm. benn keroog maa waxtaanal y trois jours benn chargé de cours si benn institution ñuy waxtaan waxi droit ma ne ko ne t'en fais pas professeur bu bu benn professeur mënul improviser un cours de droit <laughs> pour <laughs> di ko jàngale droit technique na teg boo technique boo xam ni soo ko soit nga xam <laughs> walla xamoo <laughs> boo xamee xam nga soo xamul xamoo fii dans cette affaire là il faut mu faire confiance à ses avocats man dama ko wax souvent gis nga nga ne dafa am politique ci ginnaaw politique ci kanam yooyu yëpp waxum mën naa nekk mm-hmm. mais li wóor moom muy li am mooy déjà dossier bi dafa judiciaire d'abord avant muy nekk la ne judiciaire bi mooy yaa une personne bu taxaw ne accusé la mhm. ni man kat da ma sàkku le viol obéit à des dafa am ay règles dafa am loi dafa définir viol xam nga parfois sax bi am na kii yoo xam ne du ko définir mhm. mais viol moom daf ko définir ni lii mooy viol mooy sàkku mhm. mooy mu am acte de pénétration par violence ou par surprise d'accord loolu loi bi wax loolu yow mën nga dem bu fekkee yow jàpp nga ni viol amul yow mën nga dem défendre ju sa bopp ci loolu leneen looy régler nag nga régler waale ko wàllu politique wala lu jëm ci mobilisation wala yooyu yëpp am na solo mais yooyu nga da nga défendre d'abord sur le plan juridique voilà ce qui intelligent parce que boo bàyyee ba ñu ba ñu condamné parce que moom son mhm. discours au début waaw il avait dit que yàkkamti na procès am mu dem setal setal moom ma waxoon mooy mooy waxu homme politique yi rek mhm. mooy am bu ñu waxee lii bu subaa ñu wax la li d'accord euh, euh, euh, kii par contumace très rapidement bu ñu la condamné par contumace mhm. nga tombé sous le coup de l'article L29 du code électoral mhm. xam nga lu mu tekki l'éligibilité mu ñàkk mën a ñàkk laa mën a fal boobu day automatique ba pare irréversible xam nga automatique lu mu tekki mm-hmm. moo yooyu il faut ñu koy leeral parce que sinon askan duñu xam mm-hmm. buñ ne neen lii dafa automatique mooy juge bi soxlaawu ko wax juge bi moom moom dalay condamné rek soxlaawul wax ne yow tu es inéligible c'est euh, c'est automatique dafay appliqué waaw day appliqué boppam mm-hmm. beneen bi ñu la nee irréversible xam nga mu tekki mooy yow ba ngir gi dund sa àdduna yëpp <laughs> dootoo mën a inscrire d'accord bon sûr am na possibilité amnistie yu kenn xamul mais yooyu beneen affaire la donc gis nga ni mu grave benn bi benn nit bu intelligent buy nangu loolu amul. d'accord donc da ngay dem yow sóobu ci débat bi. dem xeex sur le plan judiciaire défendre sa bopp effectivement. Euh, sàmm sa bopp am nga say avocat il faut leur faire confiance. faire confiance au magistrat justice boobu ngay wax noonu. Mhm. parce que procès pénal encore une fois bëgg na ma daaneel foofu Adja. si rapidement s'il te plaît s'il te plaît procès pénal kenn mënu laa wax la fay am. même juge bi juge bay àtte mënulaa wax pro procès pénal ba lu fay am parce que procès pénal amul hiérarchie des preuves par exemple tey nga naan non docteur bu andee nangam rek euh, juge bi da ci war a tënku no non fii ku intime conviction la or ci biir audience mën na am toujours ay ay rebondissement ak ay surprise loolu moo tax mënoo xam lu fay xew mais nag yow préparer sa bopp mm-hmm. wóolu nga sa bopp wóolu nga sa dossier wóolu nga say défenseur. Mm-hmm. say conseil préparé sa et puis yow yow sa bopp sax yow sa défenseur bopp nga amantu. d'accord juge bi na la déglu.